la mu bëgg mooy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 Euh, ci relation gi dox ci diggante Sénégal ak banque yi waxante tamit ci daru Sénégal bi ñu ne jamono ji dafa a dayoo weddi na ko nag waxante tamit ci campagne jaay ak ngënum gerte gi de laaj tontu la dox ci diggante mag maanaam am ndaje la bu yaatu la woote woon démb mm-hmm. euh, mu ngi ci yéen kaay gi di Las Abdoulaye. Euh, a lam ñu dikkee. bu dee yéen kaay gi Source A dafa xëy am na taxaw seetlu yaatu jëmale ko Euh, ci secteur soble bi nga xam ne neexul ba neex la ay jafe-jafe kese la teg Sénégal euh, donc euh, mu nekk nag secteur boo xam ne jamono ji gouvernement bu Sénégal dafa am pour maîtriser ko yaatu Abdoulaye. ma ngoog 24 heures. yéen kaay gi di heures dafa xëy dellu soir ci ndaje mu yaatu mi nga xam waa forum civil amal nañ ko démb doon amal ab constat jëmale ko ci tolluwaay réew mi waaye li ko gën a métti rek mooy liberté publique bi nga xam daanaka ko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 ubbite amu fa ndax ba def ay jàngalkat yoo xam daanaka bàyyi nañu noonu la ko yéene kaay ngir Sud Quotidien xëy Faisal Abdoulaye. le peuple quotidien. ak caacum oto moom la nemee ko jamono ji mu nekk nag benn réseau bu yaatu. Mhm. boo xam ne nga nekkee fële ca France dañu fay sàcc ay oto yu bakkane ñëw di ko rawale si fii Sénégal am na nag ñu si jot jàpp ndekete yoo waa ji xam ne mooy cerveau bi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 noonu la ko yéenekaay gii la tribune xëy fësale Abdoulaye. yéenekaay geneen stade. wax ci match pro ligue atlétique at al at Itihad ak Al Ahly. Mhm. ñoo fas yéene joué tey bu 18h jotee lay doon mu war dox nag ci diggante Benzema ak Mendy yéenekaay geneen lii retrouvailles lay doon.